mais damay ñëw ci làmb Balla Gaye Gris Bordeaux Khadim Ndiaye kan la faral. non faraluma kenn ku daan baax na mais dañuy ñëw ci drapeau Matar Ba ñu ngi fii ci Fatick. ci drapeau Matar Ba monsieur le ministre. dinaa waaw mais Balla Gaye Gris Bordeaux man la concerné nag man Khadim man dama ne ñaari mbër yi pare wuñu ñoom ñaar waaw pare wuñu. am na kuy ëpp jom xëy na mooy ëpp chance ci combat bi mais ñoom ñaar euh, boo xoolee seeni forme waroon na gën a mën a teñ. Hmm. que ni waaw. waroon non da ciy da ciy jée nag ba pare tamit aussi nit moral la nit pour nga lekk pour nga nee nañ pour nga am yaram sax il faut que xel dal mais combat bi combat la boo xam ruq bi sedd la man dama naan ci luy baax la amul fenn fuy sedd mais ñëpp nag favori ji ci Balla Gaye lañ ko gën a yóbbu. waaw man moo wax ne combat bi du ma ne cinquante cinquante quatre vingt pour cent la quatre vingt dix la ci ñoom ñaar ñëpp. Hmm. waaw xeex bi kan la ci non xeex bi Gris lay arrangé. ndax boo dee seet. Balla Gaye bi mu fekk see Gris bi paase ci xeex bi. presque kenn xamul lu Balla Gaye bëri. waaw daf ko touché yóbbu ko ardo mais kenn xamul lu mu fa bëri touché na ko mais jël amu fa xam nga te moo lay ban ni xeex dafa war a laaj bëri mais combat bi nag sor sor du ci am de ci ñoom ñaar ñëpp ñoom ñaar ñëpp moo wax la solu lu tax sorxo sorxo du ci am ndax Balla dafa dese deux combats bëri na benn bi ñàkk ko mu ngi nii di bëriwaat deuxième bu mu desewaat ko deuxième deux combats te ñaar ñi muy bëri damay wax ni ñoo bokk seen pikin bokk couleur bi ñuy défendre muy Eumeu seen ak Boy Niang tey Balla tey ñaan ma ko yàlla tey bu amoon safaan ci Gris Bordeaux day metti ñaari combat yi ci des est-ce dina ko dina ko mën a eggale mais Gris Bordeaux tamit su ñàkkee combat bii ak Balla ak Gris Bordeaux ni mu xawee retard tuuti ah, ak. troisième Tigre de Fass ba mu ko jëlee ba léegi nga xam day daan léeg-léeg mu daan léeg-léeg mu daanu léeg-léeg mu daan mais nan lay demee ci carrière am day xaw a kon nga xam ne ñaari mbëri jar nañoo yërëm xam nga ku ci nekk nag fi mu ne nii Gris li koy arrangé mooy mu toog ci tànkam dem xeex ak Balla daw jàpp mais bala li koy arrangé mooy mu géem a daw oo Gris ci xeex Gris di fayoo ko mu daw jàpp ko bëreeg moom ku ci nekk am nga loo moom lii sa morom ko moom kii lee ko moom giri xeex bee ko arrangé bala daw jàppante bi bëre moo ko arrangé mais dañ wax ne jàpp bëre nit ki soo ko ëppul doole ëppoo ko force goo ma ni mën nga am ci moom dara quoi yaa ngi dégg kon làmb ji ñu ngi ñaan yàlla yàlla na bañ a taw bu jour ba ñu bëri ko ñu bëri ko ci jàmm ndax Gaston Mbengue euh, c'est un grand promoteur wax dëgg yàlla def na lu rëy ci làmb kon tey bu te indeelee feet bu mel ni sénégalais yi duñ mën lu yàlla dugg ceeg bisimilah rahmaani rahiim génn ceeg alhamdulilah.